gis nga mhm. nit bu sonn ba sonn dañuy fépp nañ bàyyi détenu yi nañ bàyyi Ousmane Sonko candidature xam nga nga génn ci bunt bu mag moo gën nga génn di dugg ci bu di daaw parce que li ma gis Gabon dem ba waa ji valise mu dajale di yor loolu tiital na ma man ci Afrique mhm. surtout nag suñu dëkk bi Sénégal da ngay gis ku jugre nekk milliardaire koo xam ne mosoo defoo dara nga xëy nekk ci gouvernement xaalis bi ne danga si sa loxo. Hmm. kii bëgg nga ñëw defaraat dara nga bëgg ko force na ko doo bokk nga jékki-jékki nga dissoudre partem nga jékki-jékki képp ku takk brassam wala képp ku jógee af euh, ci moom teg ko nañ delluwaat seen xel ci yàlla parce que li raam ci ña ngi la jot. ñi ñu ngi leen di déglu ñu ngi képp ñu ngi puus nit ñi rek ñu puus leen rek la ñu mën a def fayu te nit bu féppoo loolu gis nga boo boo boo tool ñu nekk ba mu fépp ba mu da mer yëpp jox la ko fu muy jëm du baax man daal le mais vaut mieux prévenir loolu la français ngeen mhm. bàyyi nañ nañ bàyyi Ousmane Sonko nañ bàyyi bépp mille xoma ñaata personne lañ def ci prison yi nañ leen bàyyi dem li ñu soit nit ñaa ngi wax faalewuñu sëriñ faalewuñu kenn ñu ngi ni seen bés yi ñu yàq seen xaalis dara daw bés yaa ngi nii di yàqu tuubaa ngi ne taa affaire mhm. nit ñi bëggatuñu leen doyal nañ nit ñi ñoo doyal set si ñoom ngir yàlla yonent nañ ñu bàyyi nañ génn dem bu ñu génn dem ñaanu mu ko yàlla di am gabu am gabu Sénégal de te xam naa ne ci yoon boobu lañ jóg soo boobu yenn balaa loolu di am Sénégal ñoom dañ dem seen yoon mhm. ñoo sonn dañoo taay chaque fois da ngay yeew nga foog ne dara dina change nga dégg mu gën a waxu kenn xam man Ismaïla Madior Fall xaw ma verre mi ñoo verre mi ñoo baax xaw ma wala mu dem dem def visite pour ñu defar kaay verre yu bees mu mën a liir wala nopp yi ñoo baaxu parce que gisee ak bu déggee dina xam li xew Sénégal mais ñoom dañuy gumba gumba la dañuy tax tax mm-hmm. nit ñi nag sonn ni nit ñi ñaa ngi ci miir yi nit ñi bu ñu sonne ba mu sonn nit ñi dinañ leen song de te bu ñu leen du baax mm-hmm. waaw man xam naa ne loolu laa may wax maa maa maa ngi ziar xaar saa maa ngi xaar saa Tuuba moom man man fa fan sam laa moom maa ngi ziar ñëpp yàlla na yàlla def jàmm waay soxna jaar yàlla yàlla def lépp jàmm jaajëf Pape ah, jaajëf ñu ngi lay jaajëf jëfal bu baax a baax nga nuyu ñu waa Amérique yëpp voilà 88 628 73 308 99 99 25 24 02 77 914 64 93 surtout loolu Fatou Thiam franchement man euh, su ma sañoon daal euh, fii euh, débat débat bu nga dafay lalu ci xam-xam moom lañ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 dañu xaj-xajal ci temps bi rek xam nga ñu lay bëggee fii dafa bàyyi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ji bu fekkee am na nekkaat ci euh, ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk mi tur bi fooy wootee. Pape Thianta depuis Italie. d'accord xëy ñëpp a ngi ci jàmm. macha allah yow rek la déglu mbokk mi. mais le ministre man du wax dëgg du wax droit xam nga moom dafa mel ni sa mission c'est c'est d'éliminer Sonko quoi moom en fait amul demul ak raison demul ak xam-xam ne Sonko quoi c'est sa mission quoi moom loolu def comme mission et puis sax un ministre de la justice sur des dossiers pendant en justice moom waru ci wax amul benn pays ci monde bi bu la koy permettre dossier bu nekk en pendant en la justice doo en France benn ministre dossier ñoo koy jugé wala boog mu nekk en cours ministre bi génn di ci prononcé wu parce que loolu noonu ce sont les magistrats qui vont sortir lui dire d' arrêter. Mm-hmm. yëkkati voix bi toujours rek ñu déggante mën a neex. Mm-hmm. <coughs> ne un ministre de la justice. Mm-hmm. wax ci dossier boo xamante ni est pendant en justice. moom warul wax ci dossier yi nga xamante ni ñu ngi koy àttee Sonko wala boobu jugement ñi ñu génn benn amul benn pays bu koy permettre en France ministre sañul génn ñuy juger nit mu ciy wax. comme magistrat yi dañuy génn na ko eh arrête toi yow waroo wax ci dossier yi hmm. d'autant plus que li muy wax du dëgg c'est des contre-vérités benn mythomane mooy toog di wax lu ko neex bind ay texam Ismaïla Madior Fall dañ ne constitutionnaliste la c'est pas un pénaliste donc droit pénal xamuñ ci dara day jóg il s'invente des choses ñu jox ko micro muy wax lu ko neex c'est pas lui qui doit nous diir dossier Sonko nan la war a ak naka la war a demee du dëgg waxul dëgg waxul lu waxul lu yoon. lu ko mhm. neex rek lay wax te en lay demee ak mbañal rek lay demee ci digganteem ak Sonko moom mooy kan il doit arrêter mi ngi exagérer c'est un c'est une personne très démoniaque bon bi lan la. après toog si télé yi bëgg ñu expliquer nii la dossier yi demee contumace nii la demee yow du loi bi bu waxee li yow nga ñëw wax lee après ñu bëgg toog di commentaire ci loolu te te ñun ñëpp ñu xam ne ki wax ku bon la ñi ñëw taal Sénégal ñii ay Ismaïla Madior Fall yii seen mbaxane ak yu weex yeeg seen yére yi nii bu ñu toogee sol seen lunette on dirait après ñu bëgg ñu wax borom xam-xam amul benn xam-xam parce que xam-xam dëgg moo ko lal li ñu jóg di nar rek jóg nar every day ñu leen di déglu di commentaire seen wax perte de temps ñuy perte de temps ci ñoom duñu duñu wax l'essentiel dëkk baa ngi nii saa waay avec tous les problèmes qu'on a ñoom ñu jógee Sonko Sonko l'élimination de Sonko rek moo leen ñor te mënuñu ci moom dara ils à dix mille contre un benn nit bu tëdd ci lalu hôpital yéen ñëpp ngeen jóg ku ñëkk ñëg li nga jàngoon yëpp réer la ngay dem di foore ay impôt éliminé ko te loolu noonu mënta nekk mënu fee inventé inventé inventé ba ba dindi candidature Sonko loi waxul loolu en plus amul droit prononcer wu ci il ne doit pas se prononcer sur les dossiers de Sonko parce que les ministre de la justice il n'a pas pratiqué la justice da koy jàng qui pratique la justice sont les magistrats les avocats et les juristes moom da koy jàngal université képp pratique ko ko enseignant bi ki enseignant mécanique li taxul mu mun mu mën defar mu mën a mu mën a réparer oto mm-hmm. c'est ça léegi Ismaïla Madior Fall bu mu ñu sonal na yem na yem il n'était rien avant te fii nii moom il est devenu zéro et il ne sera plus rien dans ce pays on le respecte pas nawuñu ko dégluwuñ ko qu'est-ce que ça veut dire yow yow nga bëgg a toog bëgg ñu imposer des inventions yoo xamante ça n'a jamais existé en matière de justice en matière de droit te texte yi toog leer naññ ñu teg ko mu leer naññ est-ce que qu'est-ce que tu veux en faire boo leen bëggee rey nit ki rey leen ko après ñu xool conséquences yi mais bu leen ñu dëkk bu ñu dëkk di ñu fenn di ñu fenn di ñu yi nañu bàyyi doomu jàmbur bi mm-hmm. léegi yenn se tiré sur une sax quoi ñu duñ sax ay nit c'est pas des humains quoi la personne est à l'hôpital reer mu nekk feebar ñëpp jaaxle nga xëy di wax ay ay ay euh, insanité affaire yu affaire yu bon yu ci dëgg quoi je suis vraiment énervé excusez-moi. d'accord jërëjëf merci beaucoup 88 628 73 13 08 99 02 77 914 64 ni ñoom wootee wax sa xalaat ci li nga xamante ni euh, moo ñeel li ñuy waxtaane tey Ousmane Sonko amal grève xiifal jamono ju toll ak ay avocatam ñi ngi wéy di alerte état de santé dafa gën a critique ñi ngi daal di xam ne ni faj gi nga xamante ni sax waa docteur ñu ngi koy am ci moom jariñotu ko dara ñamal taxawaay wala ñu àddu ci ligne bi bu fekkee am na beneen beneen mbokk bu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. asalaamaaleykum ma def. maa ngi fi alhamdulilah mbokk mi tur ba fooy woote. si jàmm man la xadi xadi Espagne. xadi ñu ci jàmm. waa ñoo ngi si jàmm namm nañ la démb moom kenn gisu la allah. waa démb moo fi nekkoon. <laughs> Badara si si moo fi mm-hmm. nekkoon trop macha allah. macha allah mm-hmm. waa jaara man day xaar ma participer tuuti. bala may paa jooju génn. yow eh, li ñuy wax ci internet bi neexu la arrangé wu la bëgguloo ko dégg sonn nga sonko sonko mais fayal sa connexion fay sa wifi tëdd tranquillement yaa ngi Europe nekkoo Sénégal taalal chaîne vingt euh, yeneen chaîne yi nga xam ne du wane Sénégal mu daal di mu daal di jeex taat jarul ngay woote di naan sonko sonko sonn nañ di xas maître Clédor Sy lii mais kooku liggéeyam lay def avocat sonko la liggéeyam lay def moom na xool liggéeyam ba muy def ne du ko rate même chose kii liggéeyam lay def vraiment hmm. daal nit ñi war nañoo respectante parce que yow loo xam ne intéressé wu la génn si jeex na jarul ngay woote di di di di yar nit ñi parce que mënul yar sénégalais yëpp mënuñu wax lu ñu war a def ak lu ñu warul def deuxièmement may wax si Ismaïla Madior mi nga xam ne tey dafa génn ne euh, Sonko jugement bi jeex na rajee nuñ kaat yooyu man li ma gis jaara mooy ne ñoom à chaque fois bu ñu xamee ne état de santé Sonko mu ngi gën a détérioré wu dañuy ñëw indi lu bees teg ko pour nit ñi fàtte état de santé bu Sonko di wax ci di wax ci loolu ñu lu bees ñu li ñu teg man loolu laa gis mhm. c'est-à-dire ñoom dañoo bëgg a diriger nit ñi ci beneen wax te lii ñu war a wax ñëpp wax ci concentré wu mooy état de santé bu Ousmane Sonko bi nga xam ne mu ngi détérioré wu chaque jour Mm-hmm. loolu mooy urgence bi mais bu ñu xamee ne loolu génn la rek ñoom tamit foog ñu def leneen lu ñu génn pour nit ñi fàtte ko c'est-à-dire ñi dafa mel ni dañoo bëgg teg foofu Sonko ba mu yàqu yaxeet mais loolu moom soxor la vraiment man man comprendre tuma ñun ay jullit Sénégal ay jullit ñoo fa nekk wala lan moo fa nekk parce que ñi seen politique mooy nit ñi fàtte Ousmane Sonko ci hôpital bi fàtte ne état de santé fi mu nekk nii dafa gën a doy waar dafa gën a jéggi dayoo loolu la ñuy bañ nit ñi wax wax si moo tax ñu xëy di wax ay waxu jugement bu jeex mais jugement bi ñun ñi jàngul droit sax expliquer ñu sax ñun comprendre nañ hmm. même bu dul droit tey jii yow bu ma boo may wër man nga jugé ma sama ginnaaw may may daw nekk ci tali bi nga ñëw jàpp ma yóbbu ma mais jugement boobu war na anéantir war na jeex nga ñëw tegaat ma jugé ma ñoom depuis ñu jàpp Sonko ca Koungheul la le jugement boobu jeex mais ñoom non seulement jàpp nañ Sonko ñëw ñëw tekk ci këram def ko état de siège sédiment séni euh, nu ñu koy waxati sax am na euh, français ba daf may réer nag espagnol bi ñu daal di ko euh, ah ñu daal di ko teg ci këram di ko garde ba pare dem juge ko ñoom si gannaawam kon ñoom ñoo tëye woon Sonko hmm. kon ñoom xam nañ ne foofu contumax amatu fa c'est-à-dire jaara daal man li ma gis mooy état de santé de Sonko bi ñëpp war wax tey xëy wax si jéem ci góor góorgóorlu xool nan la ñuy def ba ñu bàyyi ko ñoom loolu la ñuy bañ nit ñi def si seen xel ak seen xalaat moo tax ñu xëy génne beneen waxtaan man loolu laa gis. mais nag Ousmane Sonko ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may wér yàlla na ko yàlla génn fi mu nekk. yàlla na nekk président Sénégal ñun loolu rek lañ mm. parce que ñun bëgg nañ ñi Afrique gépp jógee ñun tamit Sénégal jóg ba ñu mën a defar suñu dëkk mais ak ñi fi nekk nii kenn mënu fi defar dëkk bi kenn mënu ko fi defar ñu ngi toog bëgguñu joxe réew mi di yàq xaalis bi gis nga euh, néeg yooyu ñu gis Gabon mu def fees dal ak xaalis mm. tey jii bu du woon bu doon néeg yooyu ministre sénégalais yooyu dañoo di fa gis néeg yu fees dal ak xaalis lii maa la ko wax jaara ñoom li ñuy nëbb yépp di bañ Ousmane Sonko yéeg luubal bi ñu luubal moo bëri loolu moo tax bëgguñu Ousmane Sonko yéeg mais kan moo leen ne Ousmane Sonko day yéeg am temps di xeexax ñoom mais nañu bàyyi doomu jàmbur ji mu génn nañ ko bàyyi ci vraiment daal man Sénégal daal doy na waar mais comme nag ñun sénégalais yi ñoo nangu lii Macky Sall di ñu mal mëne moo groupam ah bés buñ ko bëggee mu jeex rek mu jeex parce que jaam moom boo ko defee jaam mu nangu nekk jaam rek jaam la bu ko bëggee dindi tamit dina ko dindi nu mu ko mën a xeexee nag dina ko xeex Ousmane Sonko moom mu ngi xeex moom ñun kay ñoo xeexul. jërëjëf Khady jërëjëf jaaram maa merci beaucoup Khady ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 comme ni ma ko waxee te fii ma ngi ci hôpital ah, jamono yi mu nekk ah, ah, ci li nga xamante nii rek mooy ci réanimation ci naka noonu itamit ay avocat ñi ngi def alerte ki nga xamante ni mooy maître Roy si moom mi ngi def alerte di xam ne jamono Sonko ñi ngi toog ko mel ne ku yëgul situation am alors que li nga xamante ni mooy situation mi ngi gën a critique ndax nag mi nga xam ne ni sax faj gi nga xamante ni waa kër docteur ñu ngi koy amal ci moom jarax tax mi sàkku ñu daal di jóg àddu ci situation balaa muy ëppi loxo mu ngi daal di xam ne ni daal jamono juñ toll ni critique na ba fa critique yam mi sàkku ci ñi nga xamante ni ñooy waa Pastef waaye ci askanub Sénégal ñu amal taxawaay ba am solo ñeel euh, ci dooru Pastef bi la di Ousmane Sonko bu fekkee am na mbokk ne bi ñu jël ko salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si na mi tur ba ak fooy wootee. côté côté ay waa Espagne a ngi ci jàmm. waa ñu ngi sant bu wér a wér. alhamdulilah yow rek lañuy teewlu. man damay bëgg a contribuer ci inéligibilité kii bi quoi euh, bu Sonko bi. Mhm. xam nga c'est franchement gàcce la quoi un ministre. ñu dénk leen ay réew naan defar maanaam séntu lañu suñu dund suñu jàng suñu paj mën a jëm kanam. Mm-hmm. yéen amoo leneen loo leen lu dul di kontaanu ci kooku du bokk élection deux mille mm-hmm. man franchement parler damay xool gars yi suba mais dafa toog ay journaliste dinaan yi ay maanaam amuñu lu ñu bëgg quoi dafa mel ni ñi bu ñeen ne fexe nañ ba diw ak diw du bokk élection mm-hmm. c'est que parfois da ngay xool gars yi da may ne ñii est-ce que est-ce que ñii ñu parfois sax quoi billaay parce que nit booy xool ci sa réew boo koo bëgg dafa am neneen noo ciy doxalee lu dul nii mais su may man ces gens sax jarul sa ngay parfois perdre sa temps ñoom parce que ñii dañu dul du ñu référence du ñu ñu dara ñii ce sont des vrais rek amul leneen mm-hmm. Euh, intellectuel au moins da ngay xool luy jëmale sa réew kanam yow tey ji démocratie Sénégal ñu la da deen njàng Sénégal baaxul pàcc Sénégal baaxul inondation ne ngeen léegi zéro për ngeen ne ay intellectuel ñoo yor réew mm-hmm. dafa dafa dafa doy waa trop billahi d'accord d'accord jaajëf loolu laa bëggoon a wax merci beaucoup 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 voilà si numéro yooyu ngeen daal di woote pour mën a bokk ci li nga xamante nii rek mooy waxtaan bi 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 13 bu fekkee am na mbokk ne ci ligne bi ñu jël ko voilà mbokk moom lay dem na woote leen ci numéro yooyu su ko defee rek ngeen daal mën a bokk ci li nga xamante euh, waxtaan bi euh, Juan Branco tontu na ki nga xamante ni rek mooy Fall di xam ne ni daal jamono juñ toll ni son Sonko dara mënul tee ba du nekk candidat ci présidentielle 2024 yi ñu daal di detmal moom Juan Branco daal muy xam ne ni Ousmane Sonko candidat 2024 yi ñu detmal waaye yamu ci tax mi ngi daal xam ne ni jamono ji ñi ngi def euh, ay jéego def ay démarches ngir entamer une résolution pacifique euh, bi nga xamante ni am na file ci ci ligne bi ñu jol ko salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Diarra. mbokk mi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tur beeg fooy wootee. ñu ngi ziar man maa Liko di la wooyee. Ah, yow rek la ñuy déglu. ci émission bi. Mm-hmm, ñuy déglu. d'accord mu bëggoon a interpréter wu. Mm-hmm. kàddu Ismaël Madior Fall yi. waa di wax sama mbokku patriote yi ñëw teral seen xel kooku ab tegkatu xel la nit boo xam ne nii lu baax daal daanaka du gën moom si si mission am la nekk donc d'accord yéegalal bi tuuti bi euh, déggante bi gën a neex instant bi dégguma la daa da ngay allo yaa ngi may dégg bu baax mhm. baax na waaw dama bëgg mbirum Ismaïla Madior Fall bi mhm. voilà bon pour man Ismaël Diop nga naan ko mu dem fajo ji parce que nit la koo xam ni parce que moom fi mu nekk daanaka xelam noonu la toll parce que mu newoon nañ professeur Ismaël Madior Fall ñëpp na woon ko waaye dem na ba guddiñ toll nii foo wax turam ñëpp ne la accam parce que nit la koo xam ni daanaka du roy waat du roy koo xam ni ñëpp na woon nan la fii ci droit waaye guddiñ toll nii te teg ko ci yoon teg ko ci xam-xam parce que loolu bon moom mission mooy lan pour jéem invalider su candidature Sonko moom muy ci mission am ñun nañ nekk ci li ñu war a ne avocat yaa ngi liggéey patriote yi nañu takku gën a pare te xam ne Ousmane Sonko mu ngi ci xeex bi ñun nañ ci gën a nekk waaw mhm. loolu laay soñ sama mbokk patriote yi leen wax ñu bañ a attardé ci waxu Ismaël Madior Faye bal de sonde la rek yoo xam te ni def na ko pour tester sénégalais yi mais ñëpp xam na ni waa ji li mu wax donc moom jarul ñu koy topp bu ñu sonal suñu bopp si ay waxam ku ko bëgg daal danga naan mu dem faju ji parce que moom ay mbokkam war nañ ko jàppale daal hmm. nit ba toll ci situation bi daanaka mu dem faju ji parce que moo gën aussi ab mag boo xam te ni xale yi bu mënuñu wax si yow lu rafet donc moom dugg na ci taarix waaye ci anam bu gën a ñaaw nag waaw histoire dina ko retenir lool moom moom Sénégal yëpp xam nañ ko. Hmm. waa di ziar ñëpp nag di nuyu auditeurs yëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu Paasan ak waa 2A TV yëpp. jaajëf vraiment dañ suivre saa ne. merci merci beaucoup la woote nag. di leen hmm. jaajëfal bu baax a baax di wax merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax 88 628 13 13 08 99 25 24 914 64 93 su ko defee ngeen daal di ah, mën a bokk ci waxtaan bi Mansour s'il vous plaît xoolal ma ba xam. Ah,